ginnaaw kàddu yi nga dégg wulli wax ko Ketchup wax ko ana ngay wax euh, mbokk yi lay seetaan lan mooy sababu lii nga xam ne da nga koy def di jub jàppale nit ñi surtout rawatina xale yi ak ndaw yi nga jub jël di initiative di leen jàppale di leen dimbale te yàlla rek tax yan kàddu ngay déggal mbokk yi lay seetaan. waaw asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp waaw tey siyaare bu baax. sëriñ Mountakha Mbacké xalif général ku lu murit ci ko ñaanal mu yàgg fi lool te mu gën a wër waaw noonu laa koy ñaanalee dëpp ruux bu nekk ci adduna bi ak réew mi nga xamante ni ci lañ nekk may siyaare sëriñ Saliou ndigal ci ko ñaan mu yàgg fi lool te mu gën a wër di ñaanal sama sëriñ sëriñ Saliou Seydina mu sëriñ Béthio mu yàgg fi lool te mu gën a wër Euh, di leen nuyu di nuyu mbokk internet yi nga xamante ne eh, ci waxukaay bi lañ nekk mooy Lutte TV ak euh, Bour Gueweul TV ak Wassare TV ak Dental TV yi nga xamante ne ci lañ wax nii leen siyaare bu baax di nuyu nag euh, sama xarit di sama mag di sama lépp waaw muy Ketchup waaw nga xam ne moom Serigne tubaal moo ñu boole te Serigne Touba la àndee waaye moom de def maa jàpp comme rakkam mm-hmm. ko ma nag eh, dama yaakaar ne su sañoon tey ndeysaan mm-hmm. waaw sama xéewal day yokk sama lépp yokk waaye kon maa ngi koy ñaanal moom it yàlla defal ko jàmm ndax lii yëpp moom la ndax man yii sax lu ma di di koy kii mm-hmm. waaw ndax man sama jëf Serigne Touba rek laa koy seddal ndax moo tax ma am Serigne Touba bu dul woon moom dara duma ko doon waaw ndax moom lay sant ba nay tukki sama lam niñ ci la yem waaw di nuyu tamit euh, wulli nga xam ne ci sama fan si la bokk mm. waaye tey la yàlla dogal ñu gisee loolu yëpp jaaree ko sama mag bi mm. maa ngi koy nuyu bu baax di ko sargal di ko ñaanal yàlla yàlla defal ko jàmm defal ko mujj ndax borom xol bu rafet la ndax nit moom bu la ci kenn sonal xol daal moom mooy nit nit daal boo ci génnee xol bu rafet xol bu baax di yéene jaam yi jàmm loolu boo ko génnee ci su nekkul ci nit nit nekkul kon moom boroom xol bu rafet yàlla na yàlla defal jàmm di sant euh, Sénégal yépp waaw tey jaane tamit euh, Balla Gaye de di sama xarit di suma wëllëre euh, turandoo am di Balla Gaye numéro un di ñaan yàlla yàlla xaree ko àjjana njaboot bi mu fi bàyyi yépp yàlla teg ci loxo ndax yàlla nag moo yor ay dogalam di def nu mu ko neexee waaw yàlla na suuf oyof ci kawam daal di sant Sénégal di sant ñëpp di wax ne tey daal sama xol sedd na ci seen ñëw fii wax dëgg yàlla euh, te nga gis ne ñun ñëpp ay jeunes lañu euh, ñu ci gën a bari ñu yëngu ci entreprise euh, samp ko nag ci suñu débrouillé bokk nekk ci fii ngeen ma fekk muy kër goo xam ne moo tudd Touba Madinatul Njurul muy agence immobilier bu yëngu ci terrassement ak bâtiment ak yooyu lay yëngu waaw ñuy nag ay taalibe di yëngu ci jënd ak njaay kon ni soo leen ñëwee fii dañu defal genre bu mel ni loolu sax la ci ñun waaye loolu moom seen baax kese la kon ñu ngi leen di sant bu baax a baax di bég daal ci seen ñëw di leen wax bismillah waaw di wax ne Ketchup moom bu ma doon wax ci moom ba suba day am lu des ndax moom nit ku baax la ñi ma booleel tamit bëri nañu. wax dëgg yàlla ñu ma boole nit ñu bari ay kilifa yu bari moom ma boole ak ñoom mm-hmm. wax dëgg yàlla te ndeysaan yenn saa yi day gis nit rek yërmandeem ñëw mu woo ma téléphone mu ne ma jàppaleel ma kii kii dama bëgg mu am kër dama bëgg mu teral ay njabootam dama bëgg moom mu am sag ndax nit moom sag rek moom moom moo lay sonal mm-hmm. waaw tamit ñi nga xamante ne ñoo génn àdduna ci gaal yi waaw du seen sago waaye nit bor moomul yenn moomul moomul gàcce ndax gis nga góor bu yorul mm-hmm. mu naan produit dugg gaal yi la yemale mm-hmm. ndax euh, dañu ne nit bu dundee te mënul jëriñ kenn dara mënul jëriñ boppam foofu mm-hmm. dundam amul jëriñ waaye de leen di wax rek ñu bàyyiwaat ci xel comme ni xalifa général di murit waxee ñu ay taalibe la ñu bu ñu ko fàtte waaye tamit ay jullit la ñu ko fàtte waaye tamit ay noble lañu ndax ay sénégalais lañu te mag ñu baax ñi yépp fii lañ juddoo fii lañ nekk ci sunu réew mi kon sens bi ñu am ñu dëkk ko am ndax soo ko gisee ci feebar bi romb rek nga xam ne senegal li mu am moom gise ko am nañu delluwaat ci njàngale nit ñu baax ñi nañu nañu delluwaat ci njàngale si sëñ Muntaxa li mu wax te sëñ Bass Abdou Khadir sama turandoo di sama papa wax ko di ki dëmb ci déclaration bi nañ ci dellu sax ci loolu nga xam ne yàlla mooy maye te dina may ñëpp na kenn ku nekk na nga na nga xam ne yàlla moom li mu yor pour ñëpp la waaw ñu moytu gaal yi di lancé appel état bi président Macky Sall mu jàppale jeunes yi jàppale leen état nag suñ ko waxee du président Macky Sall mooy ñi ñu fol ñu yor ay ndombal tànk ñi nekk ci maire yi ñi nekk ci ministère yi ñoo war dugg di xool jeunes yi li ñuy dund ak ndaw ñi lii seen coono ndax fenn kenn ku nekk soo nekkee maire wala nga nekk ministre yaay ambassadeur état bi ci ci gox bi nga nekkee bu dee député tamit ñu fol yaay député du peuple peuple bee la fal da di saytu seen naqar di ko xool di ko di ko di ko yóbbul état bi mu mën ci saafara ndax loolu moom moo ñu war waaw di wax naal wax dëgg yàlla euh, gis naa taxawaay bi. Euh, këccëg. sëñ bi euh, li ñu bëggoon xam mooy ku xam këccëg xam ko ci làmb. Mm-hmm. teraanga mu am yàlla ci làmb la ko jaarale. Mm-hmm. guy gi moom noonu. ñu ñu nekk ay mm-hmm. bi nga xamante ne yaa ngi euh, mm-hmm. euh, kenn rek euh, teral na ñëpp rawatina nga defar ci Lamine. Mm-hmm. Bousse wax la wax ko loolu li xam mooy ak Bousse lan la ak bi nga xamante ni dox na ci seen waaw loolu moom xam nga ki ma boole ak moom. waaw moom ay ay samay kilifa ñoo ma booleeg moom Serigne Saliou Seydina di sama sëriñ moo ko booleek man Serigne yu ndigal ci boole ko man loolu xam nga du du du wax boo xamante ne maanaam loo xamante ne di ma koy jàppantu da nga xam ne man ñooñu laa yaakaar sama tey ndax kii sama génnaaw muy Serigne Béthio bu dul woon moom du ma tekki dara maag dof yi wër ci mbedd bi di lekk ceeb bu ne ñëpp yëpp ay ñu yem parce que nit lañu comme man ndax fii ma toog di wax du sama njàng du sama dara hmm. lu nekk ci man sëñ Béthio def ci man te bésu màggal lañu ñu boole la boole kii diiru màggal bi li ma def li ma def ak man yaakaar naa def ko kenn hmm. ci sama dal la ñu yëndu mu nekk nit ku baax kii diggante sama diggante ak moom mag ak rakk la hmm. moom rakk la ma jàppee fonk ma gis li may daj mu bëgg man ma yëkkati ko ci kaw mu yéene ma ko yéene boobu nag yàlla na ko yàlla fay ndax yàlla moom euh, yéene rek lay fay gis naa loolu moo tax it lu mu ma wax même su ma ko mënu sama jéem ndax looloo ma war gis nga ñi mu wax ne pour ma jàppale jox leen terrain moom yërmande rek la ci am su neexoon mu dem xool koo xamante ne borom xaalis la mu ñëw mu ne kaay jàppale mu ndax tey eh, ñii social mooy borom alal yi ñooy social baa doole yi ñoom ñoo nekk di di di social nit ñi Sénégal ci jamono yooyu noonu la toll ki lu ëppale tey moo la dàq gën a mën a teel a xëy moo bu doon li li jëndi xaalis boo leen ko bokkoon su moytul moom li muy sédd su moytul eh, moom moo lay ëppale loolu nag dañ ci war a jóge eh, boole na mag yu bari ndax tur yi sax nga lim ko amul solo waaye eh, bu mu jëntal bu ma bu ma wooyee moo alaaji mbay ñoo taxaw mu woo ma téléphone mu ne ma alaaji mbay mii sama sama sama sama xarit la sama te sama lépp la bëgg naa ko jàppale mu joxal ma ko teere nag maa ngi sama oto ak ñeem am na ñu ko fekkee ma ne ah mais kooku yaag moo may bëre de dëgg naa seen combat bi taxaw na TFM moo ko moo ko tëgg xaw ma te man yow yaay sama mbër yow laa faral léegi noonu nu mu man demee mu ne joxal ma ko terrain ma nekk kon ngeen ànd vendredi wala samedi ngeen ñëw fii vendredi wala samedi ngeen ñëw ma jox ndax wax nga ma ko yaa sama mag nga su ma teddoon ba guddi nga sant ma dara ma def alaaji mbay ñëw na vendredi ba ma defar papier jox ko kii te wax naa ko jo bu muy ñëw ma boole ko ku koy yóbbu ci terrain loolu yëpp si moom mii la jaare te nit nag booy sant da ngay sant fi mu jaar yàlla boo ko santee te santoo fa mu jaar boo ko joxee da koy delloo ndax yàlla ci boppam moo njëkk sant boppam waaw ndax yàlla moo sant boppam ku ko sant da ngay dolli rek loolu yépp ci moom mii la jaaree mu nekk nag euh, loo xamante ne lu rafet la moo tax am na diggante yoo xam ne nit bu ciy wax sax mën na am mu am ci kers ndax ñoom fu ñuy gisee kenn du ko fekk eh, waaye eh, lu rafet daa am solo moom de xol bi mu am man de maa ngi ñaan yàlla xol bu mu am de mu yokk ko ci bi ma am man ndax nit ku rafet xol la koo gis nga koy dimbali ngay jàppale ay nit su affaire événement diine ñëwee nga ñëw taxaw ci ba mu jeex takk di xool li nga xamante gis nga tey dem na ci ministère de la jeunesse waxtaan ak moom ay kàddu soññ ko waaw loolu dafa dem soññ ministre bi ministre bu jàppoon dara da koy gën a gaawa loolu am solo la kon war nañ ko sant war nañ ko gërëm nga xam ne yow da xam euh, Sénégal ndax da fee bëre danga fee nekk xam vivre pour dund ko baax a baax a baax ba pare nga génnaat dem ci réew tëgal yi dem nekk foofu di daan sa doole te yaakaar naa bu doon am am kese wala nga am nooy def yow sa waajur nekkul Sénégal sa waajur mu ngi bitim réew di daan doole bu doon kuy jaay ful danga fi ngay nekk sam pap mu ngi foofu lu ma am yónnee la doo wut loo moomal sa bopp du dëgg waaye ku dem ba nekk États-Unis di liggéey di daan doole ba am passeport états kooku du com kooku du porte quel nit ci ku mu bëgg tey bu bu euh, bul fi fanaan tey da lay yóbbu loolu yàlla may na ko nit nag lu ma may lu ko yàlla may dañ ko koy nangul ni xam ne yàllaa ko dogal ci moom mm. kon kii mag ak rakk mooy sama relation ak moom kii def jàpp naa ko te du ma ko bàyyi te ki ma ko jàppee moo tax mooy sëriñ bi sëriñ Tuubaa kese laa ko jàppee waaw te moom taalibe la mm. te leer na ma ne taalibe la ndax jëfu taalibe rek lay jëf